محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mbokk jullit yi ci mbaaxaayu borom bi subhanahu wa taala tàggat nañu defal ñu suñu yitte nañu daje ci néegam bi nafar li nga xam ne mooy téeréem bi comme niñ ko diglee woon ci suñu barke bale waxoon nañu ne riyaadu saalihin doon nañ ko am ñaari fan ñu nemmeeku waa tëralin bi ñu gis ne wàllu pas-pas moo gën a am solo ci doomu aadama ñu ne kon fokk ñu tànnal ko benn téere ñu gis ne al usulu salaasa moo gën a jàppandal ci kuy tàmbale ci tawhid suñu ci jaaree dinañu yombalal leneen bu ñu jeexalee téere bi imma ñu teg ci al aqida al wasitiya wala ñu teg ci kitaabu tawhid lenn ci ñaar yooyu bu ñu ci gis rek dana doon jàppandal incha allah ñu def ci teg tam téere bi nag mooy xaasiyatul usulu salaasa alhamdulillah am na ñu ngi koy weccee ko téeméer ak ñaar fukk yenn ci maktaba yi xaw ma ndax ñëpp loolu la waaye am na ñu koy jaayee loola kon ku dem fële am na fa daarul istiqaama yaakaar naa bii ci angle bi itam du jomb dina fa am waaye xaw ma lu muy jar am naa ko jokkoog mbokk yi lu mel ni ñoom ndaw luñ war a xam naka la kon al usulu salaasa mooy ñetti principe yi doomu aadama war a xam digganteem ak boromam digganteem ak boppam diggante moom ak doomu aadama yi muy bokk dundu yii nag bu ñu ci duggee dinañu ci dugal ay détails yu bari ki nga xam ne moo defar téere bi mooy Muhammad ibn Abdul Wahab saudi ki ko saraa mooy abdurahman ibn muhammad ibn alqasim ba tey ak saudi téere bi nag dañ koy jagleel pas-pas nit ki lan la war a fas loolu muy fas fan la war a tàmbalee ñu bari di ko réeree li ñuy tuddee al awlawiya nit ki fan la war a njëkki boo teetee yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñépp benn tàmbalin lañu am maa lakum min ilahin xayr wala an ibudullah na ngeen yëg ni amuleen ku ngeen di jaamu kudul allah kon wuutal na la koy tàmbalee mooy tawhid wéetal boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu yónni ko fukki at jàngalewul lu dul laa ilaha illa allah te doon topp ay ñoñam di leen wax ne quulu laa ilaha illa allah tuslimu baat bi su ngeen ko waxee rek dal di texe bi maanaa wax ja bu dëppoo ak jëf-jëf fukki at ci tawhid te bañ ko yónnee la mu dund ci kaw suuf mooy ñaar fukki at ak ñett fukki at yi yëpp mu def ko ci tawxid fukk ak ñett yi mu def ko mboole seen atte yi wàcc kon gis nañ tawxid béréb bi nga xam ne moom lañ ko jox ndaxte nit ki wéetalam borom bi subhaanahu wa taala su sellee dëggu rek nit ki dal di baax sell dal di dëggu bu xejemee tilim rek mu jël ñetti melokaan yi borom bi subhanahu wa taala jàpp ne moo gën a ñaaw ci melokaan mooy misaalu mbaam misaalu xaj misaalu néegu jargoñ ñett yi yépp benn ci du jëriñ borom bi subhaanahu wa taala mu ne ci pas-pasam wérul te jaarul yoon wa yittewul ngir xam ko mu ne mu ngi mel ni mbaam noonu la ko misalee woon ci ay yahud masalu alladina xummilu tawra summa lam yaxmiluha ka masali alximaari yaxmilu asfaara mu ne nit ki nga xam ne li ñu wax ne na ko fas na jëfee noona melul noona mu ngi mel ni mbaam mu ñu sëf ay téere dina sonn waaye du jëriñu dina sonn ga sonn bu nekk dina ko daj waaye ndax dina jëriñu la kon nit bu demee ba ñu koy misaalee ak mbaam loolu misaal la bu ñaaw lool te dina fekk foofu la tollu ci mbaame beneen misaal bi mu ne kooku itam boo koy woo ci pas-pas bu sell day daw dawub gàtt xel maanaa delay daw yow nim lay dawee dawub gàtt xel lay doon ni mbaam di dawee gayle wax ñu ko annahum humurun mustanfiratun farrat min qaswara mu ne boo leen di waar noonu la ñuy dawee ni mbaam di dawee gayle xam nga mooy dawub gàtt xel lu mu jot tamponé daw boo xam ne kenn xamul nu mu mel mu ne noonu lay dawee njub kon gis nañ misaal boobu it ni mu ñaawee mu ne ñu itam kooku itam misaalam mu ngi mel ni xaj wa in tahmil alayhi yalhas wa in tatruku yalhas mu ne mu ngi mel ni xaj nga dem ba yàgg gis mu génnee làmmiñ bi nga yaakaar ne coono la nga yërëm ko dal di ko yënu mu ne mu génnee waat làmmiñ dugal ko ci oto bu ñu climatisé muy dem ne ubbi gémmiñ génnee làmmiñ dugal ko ci naaj ak coono mu génnee làmmiñ mu ne loolu mooy seen misaal la misaal boo xam ne misaal bu ñaaw la mu ne itam déglu ko te du ci mun a jëriñu mooy misaalub néegu jargoñ wa inna awhanal buyuuti la baytul ankabut mu ne néeg bi gën a doyadi mooy néegub jargoñ da koy defar ba mu jekk war ci koom musalu ko tàngoor musalu ko seddaay musalu ko ndox ma musalu ko dara defar na néeg ba daal ba mu jekk mu yéeg ci koom toog mu ne maa fi fayda mu ne kon ku amul pas-pas ak ñetti misaal yi moo yem loolu moo tax doomu aadama la mu war a tàmbalee mooy pas-pas bu sell yaakaar nañ ne nag lu yomb la waaye moo gën a jafe mboole seen lu doomu aadama di def jubbanti pas-pas moo gën a jafe ndaxte lu manqué ci moom rek ca pas-pas bala ndaxte pas-pas bi mooy conditionné doomu aadama lu manqué ci moom bu fekkee bu waxee fen pas-pas ba jubul bu fekkee boo jëflanteeg moom mu war la pas-pas ba jubul bu fekkee ne day dem di defi lu xaraam pas-pas ba jubul su fekkee ne respecté wul rendez-vous pas-pas ba jubul su fekkee ne intérêt personnel mooy yitteem pas-pas ba jubul waaye pas-pas bi bu juboo rek yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaar day gënale mbokkam ci boppam donte soxla na li mbokk mi soxla day gënale mbokk ma ci boppam day dellu gannaaw loolu la tàggee woon ñi nga xam ne ñooy ahlul madina mu bokk tàgg leen ñoom ñëpp ñoo xam ahlul madina ñoo xam almuhaaziruun moo xam ahlu badar ñoom ñëpp mu boole leen ci benn tàgg min almuminina rijal sadaqu maa aahadu allaha alayhi fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantadir wa maa baddalu tabdila borom pas-pas su sell dong moo mun a am loolu mu ne ñi gëm daal am nañ ci ñoom ay jàmbaar ay jàmbaar yoo xam ne lañu digle woon seen diggante ak borom bi subhanahu wa taala def nañ ko ba mu mat sëkk am nañu jot a faatu am nañu faatoogul waaye li gën a am solo ñoom moom soppi wuñu lañ leen joxoon jëfkatu bidaa boo gisee mu jëf bidaa rek pas-pas baa sell pas-pas bi bu sell rek dina xeñtu na muy jaamoo borom bi subhanahu wa taala ba mu dëppoo ak quranul karim ba mu dëppoo ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu fekkee nag pas-pas bi nee na nii du sotti ndaxte day fasaale lu ne moom day buub rek ci dem ñu mel ni buub muy watak lu mu jot rek day jaar ci kawam rek dal di dem kon loolu lañu gis ni defoon nañ ab njumte ñu bugg koo rectifier ndaxte ay durus yu bari amoon na te aqida li gën a am solo ñu féetaloon ko gannaaw kon ñu ngi dellu ci waa rectifier suñu njumte boobu dal nañu ko borom subhanahu wa taala nangu borom téere bi al muallif rahimahullah ubbee na téereem bi ci bismillahi rrahmani rrahim loolu mooy doxalinu borom bi subhaanahu wa taala mooy doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñuy tàmbale tàmbale ko ci turu borom bi subhaanahu wa taala al mushafu al karim borom bi mu ngi ko tàmbale ci bismillahi rrahmani rrahim boo seetee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu doon tàmbale da koy tàmbale ci bismillahi rrahmani rrahim doonte am na benn xadis bu rot ci wàllu googu xadis bi nag am na maqaal bari na ñu ngi wax ne kullu amrin zi baalin lam yuq lam yubda bi bismillahi rrahmani rrahim fa huwa aqsa aw ajzam aw abtar riwaaya bi nag boroom xam-xam yi wax nañu ne am na lu ci ne waaye al maana saxiix maana bi la muy junj loolu moom lu wér la waaye kaddu ya ñu tënk nag askanale ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoon wa mu jaar be ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoon woowu dafa wérul waaye maani ya muy joxoñ nag yooyu moom yu wér la ndaxte wér na ci ay ahadis yu leer ne salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ñuy wax ne képp kuy jàpp te tàmbale woo ci bismillahi rahmani rahim laa wudu ala maanaa amul njàpp ci amul njàpp boobu nag boroom xam-xam yi wuti nañ ci ci gisin ñenn ñi gis ne wérul ñenn ñi gis ne matul ñenn ñi gis ne njuumte la ah ni nga xam ne noonu lañ ko gisee almuhim lépp lu ñu tàmbalee te tudduñu ci borom bi subhanahu wa taala qalilun baraka barke bi day dal di néew kon boo ne bi baa boobu la ñuy tuddee al isti'aana maa ngi dimbandekoo ci tuddu allah te bokk na ci melokaanam borom yërmande bu matale ki ko jaamu ak ki ko bañ a jaamu bokk na ci melokaanam ban yërmande bi ñu jagleel ki koy jaamu mooy bismillahi rahmaani rahim boo ko waxee dina fekk lii nga wax boo ko fasee ci sa xol borom bi subhaanahu wa taala defal la barke ci loolu nga xam ne moom nga tàmbalee borom téere bi rahimahullah mu tàmbalee i'lam rahimaka allah i'lam rahimaka allah boobu kaddu la bu ñuy tàmbalee lil umuuri al muhimma li tanbi dañ koy tàmbalee boo buggee wax nit ki lu am solo boole ko teggiin ñaanal ko i'lam mooy xamal déglu ma jox ma sa xel bàyyil xel ci li ma lay wax mu daldi la ñaanal nag rahimaka yal na la borom bi subhanahu wa ta'ala yërëm kon kaddu googu bari nañu koo tàmbalee boo bëggee la ngay wax ñu déglu ko bu baax a baax ndax doomu adam boo ko ne déglu ma wala bàyyil xel ci li ma lay wax kon day gën a fogoruwaat xam ne li ngay wax yittel na la yow donte yittelu ko moom waaye dina yëg ne yow yittel na la kon bu ko dégloo amaan na bu yegsee mu yittel ko moom ci boppam rahimakallah loolu almuallifuuna alqudaama ñi nga xam ne ñooy ñi doon bind téere ñu njëkk ña salafu saalex ñoom toujours dañu doon bugg a ñaanal doomu aadama bi képp koo xam ne mu ngi gëstu ca la ñuy bind dañ lay ñaanalaale bi maanaa ñu ngi ñaan ci borom bi subhaanahu wa taala yal na la jéggal te yal na la may tawfiq sàmmal la seytaane be lima lay woo nga am dëgër lay man koy jëfi loolu mooy maana rahimaka allah kon ñoom ci tur ci turu borom bi subhanahu wa taala nga xam ne moom la tàmbalee woon ci arrahman mu dal di la ñaanal yërmande bu yaatu boobu nga xam ne ci aduna ak ci àllaaxira lay dal di doon kon lam ñu bugg a wax mooy annahu yajibu alayna taallumu arba'i masaila mu ne annahu na nga xam ne li wér te wóor mooy yajibu war na alayna ci ñun ñëpp xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan moo war ci ñun taallumu ñu jàng arba'i masaila ñeenti masala ñu dal di ko jàng xam ko bu baax a baax kon gannaaw ba mu ne war na xam nañu lu war lu war mooy kenn du la jéggal boo ko deful loolu mooy lu war kenn du la jéggal boo ko bàyyee kenn du la jéggal maanaam fokk rek ñu feyantoo ko ak yow te kii feyantoo ak yow mooy borom bi subhanahu wa taala amma bu dee ahlul usul ñoom ñu ngi gis ne alwaajibu mooy maa yusaabu faa'iluhu wa yu'aaqabu taariku mooy loo xam ne dañuy bindal tiyaabo ku ko def waaye dañuy bindal bàkkaar ku ko bàyyi loolu mooy lu war kon moom boole na ci boppam mu ne war na ci ñun ñu jàng ñeenti masala waaye ñu jàng la wax daa am lu mu fay wone mu ngi fay wone ne diine ji jàng dong mooy tax ñu man ab xereñ ak yeewu ak muus lu tax nga xam diine ji abadan diine ji daal luy tax nga xam ko min fami cheikh ila uzuni taalib mooy lu jóge ci gémmeñu sëriñ bi dugg ci noppu aji jàng loolu dong mooy buntu ak yoon ngir xam li nga xam ne mooy sharia al islamia jënd ay téere di liir jëriñu ci dara maa yumkin maa yan fa ndaxte léeg-léeg nga jàpp njumte léeg-léeg nga gis loo xam ne du noonu nga ko waroon a déggee liir dong dong doyul da nga dem nag ba toll ci niveau boo xam ne naam liir dina la jëriñ waaye dina fekk jël nga fondement yi al asaas mooy jël nga ko ci gémmeñu sëriñ yi te mu dal di mokk dal di leer dal di baax misaal bi jege na mu ngi mel ne quranul karim boo jàngoon arab ba mokkal ko lu mu mokk mokk mokk waxuma la xam li muy firi sax de waxuma loolu mais hatta xusnul ada jàng alquran niñ koy jàngee maa yumkin doo ko man abada foog nga jël ko min fami cheikh foog rek nit wax nga toppaat ci moom loolu dong mooy tax nga man hatta rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ci boppam jibril alayhi salaam da doon ñëw wax mu waxaat mu wax mu waxaat kon wakataali kon mu ne nañu yëg ne daa war ci ñun ñu jàng kon su waree ci ñun ñu jàng sol day dal di génn sol naan diw dañ koo sol diw dañ koo géntuloo diw dafa def nangam nangam kullu hada min ihaati shaytan loolu yëpp de boo ko seetee ab joxoñu seytaan lay doon ndaxte ku ñu sol bu waxee rek muy safaanoo sharia kon nag kan moo ko sol allah am shaytaan mooy dee leer seetlul ku ñu nemmeeku ne dañ koo sol rek boo seetee aksaru aqwaalihi albida walxuraafaat walxuzaabalat li muy wax ay bidaa laay doon rek wala caaxaan yu kenn xamul boo waxee nag mu ne man li ma laay wax doo ko fekk ci téere yi li ngay wax laa dalila alayhi li ngay wax doo ko fekk ci téere yi te ñun téere yi la ñu jàngaloo ndeyu téere yi mooy alquranul karim bi ci topp mooy sunnatu rasul sallallahu alayhi wa sallam kon boo ko fa fekkul foo koy fekki nag kon kon nañu bàyyi xel ci lii nga xam ne mooy jàng jàng moom dangay jàng rek xam jànguloo doo xam kon mu ne loolu mooy li nga xam ne moo war ci ñun mooy ñeenti masala masala mooy lu ñuy laaj ñu tontu la mooy misaal moo xam ne masala mooy looy laaj ñu dal di la tontu léeg-léeg nag masala mun nañu wax ñi nga xam ne ñooy def ay calcul ak loolu léeg-léeg ñu ngi koy tuddee problème def benn problème maanaam am luñ ci def ñu jublu ci nga calcul def benn solution am benn résultat kon loolu mooy masala bu ñu nee masala rek xamal ne la ñu bëgg mooy da nga def benn solution ngir nga mun a am benn résultat boo xam ne dañ ci yegg kon loolu mooy maana masala yu bari yi mooy masail moom nag ñeent la ñu ci wax bu ne ñu al uula al uula bu njëkk bi nga xam ne moom la ñuy wutal solution mooy al ilmu al ilmu mu ne mooy xam-xam xam-xam nag mooy maarifatul hadi mooy xam li lay gindi te gis nañ liy gindi moom benn la ci ñaar yi donc amul leneen luy gindi lu dul yii mooy téere borom bi subhaanahu wa taala ñu tuddee ko alquranul karim mooy doxalinu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tuddee ko assunna kon boo seetee li njëkk a wàcc ci quranul karim buntu boobu lay ñaaxaate mooy xamal mooy jàngal te jàng mooy indi xamal mooy iqra looloo njëkk a wàcc ci alquranul karim iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqal insaana min alaq kon loolu moo njëkk a ñëw iqra ah jàngalkat nga dal di gëstu xam jàngal mooy gëstul dal di xam gëstu boobu nag lan ngay gëstu mu won ñu itam la ñuy njëkkee mooy bi ismi rabbi sa turu borom bokk na ci melokaanu borom boobu alladi xalaq moom moo la sàkk kon alal aqal kay ki la amal mais fexeel xam ko fexeel nga dal di ko xam xam yàlla nag du xam jëmmam daa te doo ko gis la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar bët munu koo peeg ba gis ko waaye moom lu ne mu ngi koy gis ña koy gis mooy al muminuuna saadiquuna fil janna am nañu ci borom bi subhanahu wa taala boole ñi nga xam ne ñoo gëm te dëggu ñoom ñooy gis borom bi subhanahu wa taala naa fekk yaag saay-saay yaag kàccoor yaag bidaakat yaag yéeféer yaag kenn du gis borom bi subhanahu wa taala laa fi dunya wala fi l axira kenn du ko gis ndaxte borom bi subhanahu wa taala leeral na ko kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubuun summa innahum la taalul jahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne keroog baaraas la ñuy def seen diggante ak borom bi subhanahu wa taala ndaxte ñoom dañ leen nar a sànni safara kon ñooñu du ñu gis borom bi subhanahu wa taala dina yuuxu nag borom bi subhanahu wa taala dégg ko yuuxu naan borom bi dimbale ma defal nangam nangam ba mu sàppi borom bi subhanahu wa taala mu ne leen iqta'u fiha wala tukallimuun nuur leen ci biir safara kenn bu ma woowal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun amma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom wax nañu ne sa tarawna rabbakum kama tarawna alqamar fi laylatil badr te da ngeen gis seen borom subhanahu wa taala ñi ngeen di gisee weer wi bu amee fukki fan ak ñeent day dal di mat nekk badr mu ne ni ngeen koy gisee ni muy leeree mu ne keroog noonu ngeen di jàkkaarloo ak borom bi subhanahu wa taala keroog nag da ngeen yaakaar ne mosu leen am xiwal lu dul loola moo taxoon borom bi subhanahu wa taala laaj leen ndax bugg ngeen ndollat ñu ne bugguñu dara léegi kay alhamdulillah yépp mat na buggatuñ dara borom bi feeñu leen ñu ne yaakaaroon nañ ne mosuñu am xiwal lu dul loolu ah moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ne ñi nga xam ne def nañ njekk njëkk boobu danañ leen ko fay wa ziyaada ziyaada boobu salaf saalih dal di ko firee mooy ru'yatullahi tabaraka wa taala mooy gis borom bi subhanahu wa taala kon bi ci jiitu mooy al ilmu ilmu nag bu ñu ko tuddee rek dal di ko boyal lañu ca jublu mooy al ilmu shar'i mooy doxalinu sariya looloo taxoon imam Bukhari rahimahullah mu def benn buntu ci téeréem bii nga xam ne mooy sahihul buxaari mu ne baabun al ilmu qabla al qawli wal amal qaala allahu tabaraka wa taala faalam annahu laa ilaha illa allah wastaghfir li dambik mu ne buntu bii daal lama la cay jàngal mooy xamal balaa ngay wax ak balaa ngay jëf su wax jiitoo xam-xam rek musiba am su jëf jiitoo xam-xam bidaa am xam-xam moo war a jiitu lépp mu ne ndaxte borom bi subhanahu wa taala loolu la wax def na wax ne faalam xamal annahu laa ilaha illa allah na nga xam ne kenn yeeyoowul jaamu lu dul borom bi subhanahu wa taala nga soga nag yittewoo njëggal wastaghfir li dambi kon yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax looloo tax mu junjël ñu fii ne na nga xam xam-xam nag ala qisma yi ñaari xaaj la fardu aynin wa fardu kifaaya fardu aynin wa fardu kifaaya xam-xamu bopp boo xam ne xam-xamu keneen du la jëriñ foofu ak xam-xam boo xam ne bu ko masamba xamee rek mën naa doy ma demba bu ko ma sàmba xamee rek doy na ma demba waaye ak xam-xam boo xam ne ku nekk moo ko war a xam kon ñaari façon xam-xam moo am ngéeju ci xam-xam mooy fardu kifaaya toujours nag nga bokk ca ña xam moom moo gën ndaxte al al aalim yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi l ardi hatta al xiitaanu fi l bahar ndaxte ki nga xam ne mooy boroom xam-xam moom dina ko jéggulul ñoñ asamaan ak ñoñ suuf hatta njanaaw yi ci biir géej gi dina jéggulul boroom xam-xam hatta njanaaw yi ci biir boroom xam-xam bu tëdd di nelew moo ëpp yool ku amul xam-xam taxaw di jaamu yàlla boroom xam-xam buy tëdd di nelew yandoor ci biir nelewam lañ koy bindal ci yool ci nelew yooyu moo ëpp fuuf ku amul xam-xam taxaw di jaamu yàlla ndaxte ay bidaa laay def bu yàqoo mënu koo defal gis nga kon loolu moo tax xam-xam boobu nga xam ne moom la ñu jagleel feddli ko war na góor war na jigéen war na mag war na gone war na borom daraja war na ko amul daraja ñépp la bokk war boobu nag mooy lan mooy xam nooy yiwénalee sa diine yaakaar naa romboon na ci ñun ci darsul axdar yi ah waxoon nañu li njëkk a war ci jullit mooy lan awalu ma yajibu ala almukallafi tasxiixu imaanihi summa maarifatu ma yuslihu bihi fardaayi li njëkk a war mooy jubbanti pas-pas ci la ñu nekk mooy tawxiid la ca topp nag nga xam nooy yéwénalee sa diine nooy jàppee nooy wooree nooy tiimee nooy laabee nooy ajee nooy génnee asaka yii moom principe la yoo xam ne ku nekk da ko war a xam ku nekk rek moo ko war a xam masamba bu toogee fale xam nu muy julleem loolu lu muy jëriñ ma demba du ko jëriñ dara masambaak mademba ñoo war a yem ca naka la ñuy jullee naka la ñuy tiimee naka la ñuy jàppee mooy xam-xam boo xam ne du doy keneen waaye yeneen nag am na yeneen mbir yoo xam ne nag bu ko kenn xamee ñaar xamee dina doy ci xeet mi bu ko ñépp réeree nag ñépp dal di am bàkkaar bu amee ñu jóg nag xam ko ñooñu jéggal li leen borom bi subhanahu wa taala jàppee ñeneen ña mu jéggal ñooña waaye ñii nag lay bindal yool lu mel ni faraid naka la ñuy séddalee ndono te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne xam-xam boobu mooy genn wàllub xam-xam te mooy xam-xam boo xam ne dinañ dem ci jamono ba mu jeex kenn dootu ko xam kon loolu góorgóorlu ci xam ko lu ama am solo la yu mel ni ki noonu ak atte yi nga xam ne mooy jullee néew taxaw di ko def bu ko ñenn ñi defee dina wàcc ñeneen ña ak lii nga xam ne mooy taxaw xam téere borom bi subhanahu wa taala lépp lu muy firi bu amee ñi ko xam dina wàcc ñeneen ña waaye yeneen yi nga xam ne nag moo jëm ci ponk yi kooku moom ku nekk moo ko war a xamal boppam loolu moo tax mu tàmbaleel ñu ci mbir mu am solo moomu nga xam ne mooy xam-xam fii nag mun nañu wax ne xam-xam boobu mooy ban buñ ko laajoon ñu ne mooy bépp mbir boo xam ne laa yata'ul muslima jahlu bépp mbir boo xam ne duñu jéggal jullit bi mu réeree ko loolu lañuy tuddee xam-xam bi nga xam ne mooy bi war ñëpp moo tax mu allif bi tàmbale di ñu ko firil mu ne ñu wa huwa xam-xam bi ma jublu ci defal ko article défini al ilmu waxul ne ilmun déedéet al ilmu xam-xam mu ne wa huwa boobu mooy ma'rifatullah mooy xam yàlla ma'rifatullah xam yàlla xam yàlla nag léeg-léeg ñu gis ay doomu aadama yu ci wuute ci xam yàlla man huwa allah kan mooy yàlla am na ñoo xam ne yore nañ beneen tarbiya bu ñuy tuddee xam yàlla te balaa ngay xam yàlla tàggoog xel kon dina nekk lu doy waar kon ñun xam yàlla bi nga xam ne moom la ñu bëgg a jàngale mooy ba salawaatullahi wa salaamuhu jàngale woon borom bi subhaanahu wa taala nga yëg ne allahu mooy alxaaliqu alraziqu almuxyi almumiitu alqaadiru ala kulli cheyin walmudabbiru li umuuri haada alkawn nga gëm ne yàlla moo sàkk te mooy dundal te mooy rey te mooy wërsëgal te mooy toppatoo suñu dëkkuwaay bii nga xam ne mooy àdduna te moom mooy ki nga xam ne moo man lépp amul lenn lu mu réeree amul lenn lu mu tële kon xam yàlla boobu ñun boobu lañu jublu ci jàngal ko doomu aadama yi bi maana nga xam borom bi subhaanahu wa taala xamin ba nga xam ne moo la wax ne nii laa tudd nii laa mel wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax loolu xam-xam boobu lañu wax waaye waxuñu xam-xamu Masamba ak Mademba wala tëju ci biir néeg di tudd ab kàddu waxuñu xam-xam boobu mu ne mooy benn xam-xam bi mu jublu mooy maarifatullah beneen càq bi mooy wa maarifatu nabiyi nga xam itam yonentam bi xam yonent bi nag waxuñu ne rek Muhammad ibnu Abdillah déedéet ndax te yéeféer yi xamoon nañu loolu ndax te ki nga xam ne mooy Suhayl ba ñuy signé pacte boobu nga xam ne defoon nañu ko te jaaroon na fi am na ci tafsir yaaqal naa junjoon nañu ko ba ñu ne muhammadun rasulullah loolu la ali ibn abi talibin bindoon haada ma ittafaqa qurayshun maa muhammad rasulillah suhaylu ne ko déedéet law qabilna annahu rasulullah ma qatalna mu ne suñu nangu woon ne yàllaa ko yónni ni kon duñu xeex ak moom ba di signé pacte bi doo bind loolu ñun d'accord ñu muhammad ibnu abdillah loolu ngay bind kon yéeféer yi xamoon nañu loolu ndax jëriñoon na leen déedéet kon ñun jubluwuñu muhammad ibnu abdillah déedéet ñu ngi jublu mission bi ñu joxoon muhammad ibnu wax ma bil ihaade wal ilham déedéet mu ne nga xam diine bi teg ko ci tegtal yàlla ne na yonent bi ne na te bi gént naa de déedéet waxuñu diine bi sol nañu ma de déedéet waxuñu yooyu ci tegtal lañu wax nga ne nangam ñu ne foo ko teg nga ne qaala allah nangam foo ko teg nga ne qaala rasulullah mu yee loolu la ñuy tuddee al ilmu ci article défini mooy xam-xam waaye lépp lu dul lii nag du xam-xam moo taxoon imam shafai rahimahullah bari na lim doon wax ne mu ne boo déggee xam-xam mooy qaala allah wa qaala rasulullah qaala allahu wa qaala rasuluhu mu ne loolu looy xam-xam wa ma siwa dalika fa kalaamu mu ne leneen lu dul loolu duñ ko tuddee xam-xam ne nañ ko tuddee wax wax la naam wax la waaye du xam-xam xam-xam moom mooy yàlla ne na yonent bi ne na mu ne kon xam-xam bii day la la bëgg a jàngal xam yàlla xam yonentab yàlla xam diine yàlla ji teg ko ci ay tegtal yoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo wax tegtal yooyu kon ci yoon wii la mu allif bi bugg a jaar ak ñun ngir jubbanti lii nga xam ne mooy suñu pas-pas kon masala bu njëkk bi mooy bii ñu tudd mooy al ilmu mooy xam buñ la laajee nag lan mooy xam tontu bu wér bi mooy ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu diinil islaami bi loolooy al ilmu mooy xam-xam xam yàlla xam yonentab yàlla xam diine yàlla teg ko ci tegtal yu wér kon yàlla nañu borom bi subhaanahu wa taala baaxee ci anam yooyu yàlla nañu woon dëgg ba ñu xam ne lii mooy dëgg mu wërsëgal ñu xol bu koy nangu yàlla nañu woon caaxaan ba ñu xam ne lii mooy caaxaan mu wërsëgal ñu xol bu koy dëdd wa axiru da'waana an boo déggee xam-xam mooy qaala allah wa qaala rasuluhu qaala allahu wa qaala rasuluhu mu ne loolu looy xam-xam wa maa siwa dalika fa kalaamu mu ne leneen lu dul loolu buñ ko tuddee xam-xam ne nañ ko tuddee wax wax la naam wax la waaye du xam-xam xam-xam moom mooy yàlla ne na yonent bi ne na mu ne kon xam-xam bii de la la bëgg a jàngal xam yàlla xam yonentab yàlla xam diine yàlla ji teg ko ci ay tegtal yoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo wax tegtal yooyu kon ci yoon wii la mu allif bi bugg a jaar ak ñun ngir jubbanti lii nga xam ne mooy suñu pas-pas kon masala bu njëkk bi mooy bii ñu tudd mooy al ilmu mooy xam buñ la laajee nag lan mooy xam tontu bu wér bi mooy ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu diini l islami bilmadina loolooy al ilm mooy xam-xam xam yàlla xam yonentab yàlla xam diine yàlla teg ko ci tegtal yu wér kon yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala baaxee ci anam yooyu yàlla nañu woon dëgg ba ñu xam ne lii mooy dëgg mu wërtëgal ñu xol bu koy nangu yàlla nañu woon caaxaan ba ñu xam ne lii mooy caaxaan mu wërtëgal ñu xol bu koy dëdd wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum naam al muazzin nga xam ne gis nañu ko tey ñu tuddee ko al ilmu dañu ci war a bàyyi xel bu baax a baax ndaxte nit lépp lu muy jëf te mu koy jëriñ te koy jëf ci yaqiin du ko jëf ci làmbatu rawatina lii nga xam ne nag mooy pas-pas moom nanguwul lenn ci yii nga xam ne mooy làmbatu moo tax borom bi subhanahu wa taala bari na ci ay pas-pas ak ci ay jëf ak ci ay jubluwaay borom bi la muy wax ren mooy haatu burhanakum in kuntum sadiqin lii su fekkee ne dañ ciy dëgg indi lay kon mbir li nga xam ne moo dëppoo ak lay kon su fekkee ne doomu aadama bi dafa réeree ndigalu borom bi subhanahu wa taala ak tere borom bi subhanahu wa taala kayfa tatasawwaruuna annahu ya'budu llah nu ngeen yaakaaree ne kooku lu muy jaamoo borom bi subhanahu wa taala law li yàlla daganal xamoo ko li yàlla xaraamal xamoo ko kooku naka lañu xelaatee ne moom dina mun a jaamu borom bi subhanahu wa taala bàkkaar bi gën a màgg ci bàkkaar yi te ñu sàgganee ko mooy aljahlu bi diin mooy réeree sa diine réeree sa diine te nit ñi boo leen càmbaroon dal di leen seetaat ndax da nga gis dix pour cent ñu xam seen diine mokkal ci biir julli ndax dinañu mat dix pour cent ñu ngi tiit ci loolu lool est dina ko kon nag lim bu tollu ni yépp su fekkee dafa réeree diine kon bidaa yi ni ñu tasaaroo c'est normal bidaa yi dal di mel noonu ñaawteef yi ni ñu mel c'est normal mu dal di mel noonu ndaxte day jëf lu mu xamul ki nga xam ne moo xër mu xuus ci ay bidaa ki nga xam ne moo sàggan mu xuus ci ay ñaawteef hakada faqat sabab ba yépp mooy aljahlu mooy réeree dëgg-dëgg li waroonte mooy bàkkaar bi gën a màgg xanaa gisuñu ne al amalu bi gayri ilmin mooy tariqu nasara jëf loo xamul mooy yoonu nasara ñi réer ba réeree seeni borom lan lañu waxoon ci seeni borom mooy salisu salaata ah yàlla day moom boo koy làmb làmb ko ci ñett yi rek kenn la rek ci ñett yi kenn ci ñett yi imma isa imma allah imma ruhul qudus ani mariam ruhul qudus maana isa aw loolu ngeen di wax allah kenn rek ci ñett yooyu ba ñoom noonu la ñuy jaamoo seeni borom noonu la ñuy jaamoo seeni borom maana ci turub ndey ja doom ja ak ruubu sell bi kon mu ne jullit bu jaaree yoon boobu bokk na ñoom yoon bu moytul mu bokk ak ñoom atte mu ne yoon woowu itam booy jëf doo ko méngale ak tegtal mooy yoonu yahud mooy yoon ay yahud ñi borom bi subhanahu wa taala waxoon ne yaktubuuna alkitaba bi aydihim summa yaquluuna hada min indillah mu ne dañuy bind ba pare ci seeni loxo de dañuy bind ba pare ñu ne lii kat yàllaa ko wax lii yàllaa ko wax seetal seen téere amuñu benn téere boo xam ne mooy asl amatuñu bu dee injil bi nga xam ne moom la ñuy wax injil bi ci boppam waaye ñoom injil bu nekk daa am fuñ ko jagleel injil luuga injil matta injil yohanna manaajil yooyu lañ yore te doo fa dégg yàlla ne na maanaam ne na mu ne nangam ak nangam yooyu rek nga fay dal di dégg ah te ñoom ñoo am ancien testament ak nouveau testament waaye ñun nag ba léegi alquranul karim moom alquranul karim la ancien testament nouveau testament boobu kañ la ak kan moo def testament yooyu asfar yooyu min man kan moo ko bind kon yooyu moo tax wax lu dëppoowu la xam-xam ñaar ñii mooy seeni yoon mooy al yahud ak nasara te ku jaar yoonu yahud ak nasara jaar na yoon wi nga xam ne mooy yoonu toskare moo tax borom bi subhanahu wa taala amul solo xam te xam mooy gindi moo tax mu wax ñu ne nañu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu gindi ñu ci raka bu nekk mu ne nañ ko ñaan raka bu nekk du wér mu nekk raka lu dul wax nañu ci ihdina siratal mustaqim jubal ma yoonu jub waaw jubal ma boobu ngay ñaan nag waaw da ngaa soxla nag yàlla ci boppam ñëw jàngal la maa yumkin wala da ngay soxla yow ci sa bopp ñu jagleel la ab yonent laa yumkin kon yooyu yëpp fokk ñu bàyyi ci xel bàyyi ci yitte bu baax a baax ñu seet naka ak ban yoon la ñuy jaar beneen meeku ci anam yooyu moo tax loolu ngay ñaan borom bi subhanahu wa taala nangul na la sa ñaan jàppanalal na yoon woowu sàmmal na la alquranul karim ba mu yegsi ci yow mu tàggatal la saxaabatul kiram ba ñu tënkal la wax yonent bi ba mu yegg ci yow kon kay njub bi yegsi na xanaa yaa ko bëgg la jël kon loolu moo tax nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te yoonu xam boobu mooy bi ngay ñaan siraat alladina an'ama allahu alayhim min asiddiqina wassuhada wassalihin borom bi bam ko waxee ba pare nag dafa wax ne xasuna ulaika rafiqa mu ne ndaw yoon wu rafet boo àndee ak ña xam nga ànd ak ña rafetal nga ànd ak ña faatu woon ci yoonu yàlla nga ànd ak ñay góorgóorlu ba nga dekkee rek dal di xool ñooñu di gis abu bakrin wa umar wa usman wa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam xasuna ulaika rafiqa mu ne ndaw yoon wu rafet ndaw yoon wu jekk ndaw dekki bu baax waaye képp koo xam ne nag dekki na geesu ndey joor ak càmmooy gisul illa firawna wa haamaana wa qaaruun musiba dal na ko te ñaari kuréel yi dong na am na li la ci musal nag mooy nga jël xam-xam boo xam ne dafa dëppoo ak yàlla ne na yonent bi ne na nga dal di ko jëfee yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala baaxee wasalaamu والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mbokk jullit yi tàmbale woon nañu al usulu salaasa muallif bi doon ñu ci jàngal ñeenti mbir yoo xam le laa yasaul muslima jahluhu duñu jéggal bépp jullit mu réeree ko duñu jéggal ab jullit mu réeree ñetti usul yii wala ñeent yi jëloon nañu ci nag benn al aslu mooy cosaan xam nañu usuli diin mooy al iman cosaan ci diine ji mooy iman kon jotoon nañu jël bu njëkk bi mu waxoon ñu ne huwa al ilmu bi taarif alif walaam al ilmu mu ne mooy xam-xam firiloon nañu nag lan mooy xam-xam waxoon nañu ne mooy maarifatullah wa maarifatu nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam wa maarifatu diini l islaami bil adilla kon foofu lañu taxawoon xam yàlla xam yonent yàlla xam sa diine te xam-xam bi tegu ci tegtal te xam nañu ne tegtal mooy yàlla ne na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na kon tey nag def ñu booleel ñeenti ñi après nag mu détaayel ñu ko ba mu leer mu ne ñu ñaareelu asl bi al amalu bihi al amalu bihi al amalu mooy jëf bihi mooy lala xamaloon islaam waxoon na la ne bokk na ci xam maarifatu diini l islaami bil bil adilla al ilmu bihi mooy al amalu bi hadihi l adilla mooy nga jëfee la sax ci ay tegtal nga bàyyi la sax ne ay tegtal dàq nañu ko kon mooy xam jëfi ñaareel bi mooy jëfi ñetteelu aslu bi mooy addawatu ilayhi mooy nga woote nag ci la nga gëm ñeenteel bi assabru ala al ada fiihi muñ léppul la ci fekk kon lii mooy ñeenti usul yi xam jëfee la nga xam woote jëmee ca la nga xam di ko jëfee muñ nag wàkkeelu ci borom bi subhanahu wa taala lu la ci fekk nga xam ne loolu la waaye dangay am yaqiin nag ne inna al aqibata lilmuttaqin def lay wóor ne nag muj gu rafet ga te xam nañu ne mooy bés pénc loolu moom mu ngi ñeel ña nga xam ne ñoo ragal borom bi subhanahu wa taala tënku ci moom kon bu ñu dellusee ci ñeent yi tegtal bim ñu njëkk a jox balaa ñuy dugg ci détail yi mu ñu jox suuratul asr moom la ñu jox tegtal bu ñuy leeralal ñeent yi mu wax ne duñu jéggal bépp jullit boo xam ne réeree na ko réeree na ko na la jóge lii mooy tegtal ba déet waaye sa jëf day dëppoo ak loolu sa pas-pas dëppoo ak loolu doon toog xamoo ponk yooyu mu ne ñu tegtal ba mooy suuratul asr borom bi subhanahu wa taala wax ñu ne wal asr inna al insana la fi xusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانه وتعالى دفا جن فدلي ngir dëgëral wax ji ñii am sikki sàkka mu leer ci seen kanam borom bi subhanahu wa taala tànn doomu aadama ci boppam ndaxte daa tànn li tax doomu aadama nefi mooy jamono ñu bàyyi xel ne salafu saalih ñoom dañu jàppoon ne jamono yooyu lépp xasanul basri rahimahullah moom de doon wax ne góor góorlu leen bàyyi xel ci jamono maanaam ci temps temps bi ngeen am bàyyi leen ci xel ndaxte innama al insanu ayyam fa ida zahaba yawmun zahaba ba'd mu ne na nga yëg ne doomu aadama ay bés la bés bu dem rek sa genn wàlla dem na bés bu dem rek dee jege si la bés bu dem rek dee jege si la kon ci jamono jooju la borom bi subhanahu wa taala géñ am ñu ne al asr waxtu feddleku la loolu mooy gannaaw tisbaar jëm timis lu tuddee tàkkusaan tàkkusaan nag nañ ko doon xamee woon mooy takkandeeru doomu aadama bu tolloog boppam wala takkandeeru lu ne guddaayu takkandeer ba tolloo nag borom takkandeer ba ñu ne tàkkusaan jot na be mu nekkaat ñaaram ñu ne muxtaar ba wéy na kon ci lii am ñu ne ci jamono ju am solo jooju la borom bi subhanahu wa taala géñ ndaxte ñu bari dañ koy daal di sàgganee am ñu ne al asr jamono rek la géñ waxtu muu la doon waaye genn walla la ci jamono waaye jawaabul qasmi walla jawaabul qasami bi borom bi subhanahu wa taala indi mooy inna al insana la fi xusr doomu aadama bu ne dafa perte doomu aadama bu ne la muy jëf du ko jëriñ su indiwul ñeent yi mu bugg a tudd te borom téere bi tuddee ko al usul maanaa cosaan yi nga xam ne mooy jëriñ doomu aadama mu ne ñeent yooyu nag ñoom dong ñoo mun a musal doomu aadama ci bu leen jàppee ni borom bi subhanahu wa taala bëgg ñu jàppee ko ni mu ne la fii xus ñoom ñépp perte nañu al insan la borom bi subhanahu wa taala ismul jins maanaa képp koo xam ne atte nite être humain mu ngi ci moom rek bokk na ci biir biir bi moo xam ne gëm na wala gëmul góor la wala jigéen na ku baax la wala safaan ba la waaye dugg na ci biir wax ji borom bi subhanahu wa taala ne al insan ñoom ñépp perte nañu mu dal di génnee nag ci biir perte boobu ña nga xam ne dañuy mucc moom atte bi du leen yóbbaale mooy illa alladina aman lu dul ña gëm atte boobu al amanu illa alladina amanu la borom téere bi tuddee al ilmu ndaxte laa yutasawar an yuhibba al maru ما لا يعلم ولا يعرف أو أن يصدقه ndaxte dëgg dëgg ngir ñu dégg ne nit dina bëgg lu mu xamul nekk na lu jafe loolu waaye bu ñu nee xam nag jëmale ko ci borom bi subhanahu wa taala loolu xamuk nangu la waaye ngir nga gis ko settantal waxuñu kii boobu moo taxoon borom bi subhanahu wa taala moom dafa jiitaloon xam wala ngay fas فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك xamal ne kenn yeyoowul jaamu kudul allah xam-xam la njëkk a wax faalam imam buxaari rahimahullah dina ñëw ci détail yi moom mu def benn buntu ci téeréem tuddee ko baaboon al ilmu qabla al qawli wal amal mu ne buntu bii lama cay wax mooy nit dafa war a xam balaa muy wax ak balaa muy jëf kon nag doomu aadama looy wax dañ ko war a xam looy jëf dañ ko war a xam loolu la tudd waxaloon nañu lan mooy xam-xam ci gannaaw dinañu ci détail yi kon illa alladina aamanu bi mu njëkk a génne rek mooy ña xam di jëfee ñaareel ba melo bii tax nit ki mucc gannaaw imaan mu ne wa amilu salihat illa alladina amanu wa amilu salihat bam ñu waxee al ilmu lam ñu ca tegal mooy al amalu bihi wa nga dal di ko jëfe moo tax mu ne wa amilu salihat ñuy jëf ay yiw ñetteel ba wa tawaasaw bil xaqi ñuy dénkante dëgg mooy ad daawatu ilayhi mooy woote ca la nga gëm bi ko ñeenteel wa tawaasaw bi sabr ñuy dénkante muñ muñ boobu lañu waxoon ne assabru alal ada fii mooy dangay muñ lor bañ laay lor ngir li nga téye ci sa diine ndax doxalinu borom bi subhanahu wa taala ku téye ci diineem rek ñu lor kooku mooy sunnatullahi fil kaw boo téye sa diine dinañ la xas dinañ la xeex dinañ la xeeb dinañ la mere ndaxte lan moo ko waral dangaa jub te ku dëng bu ku jub lii mooy jafe-jafe yi nga xam ne doomu aadama dina ko am bu tënkoo bu ñu delloo nag ci maani yi nga xam ne mooy ñett yi ñu war a gis tey benn bi def ñu waxoon ne al amalu bihi al amalu mooy jëf bihi al baau al jaaru wal majruur maanaa xarf bii nga xam ne mooy baa ak damir bi mu wax hii moom mooy al ilmu mooy xam-xam maanaa jëfee xam-xam moo taxoon borom bi ne ñu laa taqfu maa laysa laka bihi ilm inna sama wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana an masula laa taqfu lañu borom bi wax bul xeñtu bul gëstu bul topp loo amalul xam-xam leeru la xamoo leerlul ba mu leer bul jëfee de bul nettali bul fas ba mu leer mu ne ndaxte inna samaa sa nopp yi ngay déggee wal basara sa bët yi ngay gisee wal fuaada sa xol bi ngay fasee des penc kat dinañu leen laaj yii ñooy organe de sens yi nga xam ne ñooy communiquer ci doomu aadama mu tudd doomu aadama mun a jëfandikoo boppam ba mun a jaamu borom bi subhanahu wa taala ndaxte ci yii la xam-xam di jaar te buntu bi mu ngi ko tàmbalee woon ci xam-xam loolu nga xam nga muñ koo jëfee loolu ngay jëfee nga muñ ciy woote loolu ngay woote nga mun a muñ dëgër kon nag nit day wax nga dégg mu def nga gis loolu nga dégg ak loolu nga gis nag nga fas ko ci sa xol kon looloo tax mu ne bul xeñtu lu la leerul borom bi waxaat feneen ne ya ayuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi nabain fatabayyanu mu ne yéen ñi gëm lay wax bu xabaar ñëwee ci yéen fu mu mun a joge bul fas bul dàq bul weddi bul saxal fatabayyanu leerlul defal ndànk nga am dal ak teggiin nga leerlu xabar bi fu mu jóge lu tax mu jóg lan lañ ca wax nu mu mel ak sama diine lu muy xejemal ci sama dund ba mu leer la ne lii wér na ne mu ngi jóge ci yàlla ak yonentam nga dal di saxal dal di jëfee mu leer la ne jógewul ci yàlla ak yonentam nga bàyyee ko fa mu jóge nga dal di ca maandu mu ne nag loolu boo ko deful ah dina am lu jóge ci yow nga jëmale ko ci doomu aadama jamono ñëw nga rëccu jamono ñëw nga rëccu moo tax ulamaau ilmil kalaam ñoom ñépp laata ñuy génn aduna wala ña ca ëpp rëccu nañu mel ni ñoom imaamu Ghazali ci mel ni ñoom faxru razi mel ni ñoom abul maalim juwayni ina amanu fokk rek nga dal di jëf jëf yiw amma beneen bi nga xam ne moo ci tegu mooy xam-xam boobu ñuy jëfee bi tawfiqin min allah borom subhanahu wa taala moo koy dëppale dal di ko baaxee doomu adama gannaaw bam ko ko baaxee it mooy dugal ci xolam ne lii ma xam daal lii laa war a jëfee lii ma xam lii laa war a jëfee moo tax ulama yi ne kullun muabbadun bijtihaadi ku nekk rek dañ koy jàppee ci góor góor loom kon nag borom xam-xam ya lañ wax masala boo xam ne lënt na ku nekk rek dañ koy jàppee la nga xam ne loolu la ko xam-xamam jox kon xam-xam bi ñu soxla fii mooy nga xam lay yéwénal sa jaamu borom bi subhanahu wa taala beneen bi ci tegu mooy ad da'watu ilay woote borom bi subhanahu wa taala waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko leeral doxalinam ak la tax mu jóg mu wax lan mu wax mu lan qul هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وخلن هذه لي مالين بوغا وخل لي مالين إندل موي سما دخل سبيلي من في رك لا جمد لا يمنتن ولا يسرتن لي جورا تشاموين لا مستقيم من كوي يعني بتقول إهدنا الصراط المستقيم waaw loolu nag mooy lan adu u ila allah damay woote jëme ci lan jëme ci yàlla laa ila diini al aaba wal ajdaad laa taassuban lil watani wal aaraai wal nasabi wal hay laa wakalla ila diini illah da'watu ilay maanaa woote jëme ci borom bi subhanahu wa taala waaye woote wuma diine réew déedéet am na ñoo xam ne boo waxee ñu ne diine africanité ñun africain la ñu la laysa hada am na ñoo xam ne bu ñuy wote dañuy jëme ci réew suñu réew mi ñu baax ñi ci suñu réew mi xanaa lu ñu baax baax kay ña leen sàmmal diine ba ba ñu jot ci xanaa ñoo ñoo leen dina baax kay na aqallu taqdir naam d' accord ñu baax nañu waaye ña sàmm diine bi sàmm alquran bi ba mu ñoŋ baaxee leen jàngal leen ko xanaa boo leen méngalee kay ñooñu am nañu fadl ci seen kaw kon du diine aussi buy jëm ci ab réew déedéet xam-xam ku dëkk ci réew mi ku dëkk ci réew mi fal yakun ilman na nekk rek xam-xam du ñu woote it jëme ci sottotloo ak parparloo déedéet waaye ad da'watu ila allah naka lañ koy woote ku nekk ay jot bokk ci wax ci nu mu ko soobee mu ne déedéet ala basiratin dañ koy teg ci xam-xam de bu leer nañ ci xam-xam bu leer lañ koy teg maanaa képp koo xam ne mu ngi wax na wax xayran xayra nag mooy maa saabaqa al ilmu shari su ko manul na noppi su munul wax jàmm na noppi su xamul jàmm ja muy wax na noppi kon addawatu ilayhi boobu ala basiratin la war a doon yonent bi nag ne ana man day loolooy sama doxali wa man ittabaani ak képp ku ma topp nangul ma déggal mu ne nag maa ngi muslu ci borom bi subhanahu wa taala di ko tagg ba may bokkaaleeg moom laay indi bokkaale nag mooy xër bu àndul ak xam xër bu àndul ak xam mooy indi li nga xam ne bokkaale te mooy indi yi nga xam ne mooy bidaa te ñaar yooyu dañuy yàq jëf dañuy toroxal seeni borom naam ci oote boobu mooy indi xayriyatul umma yani addawatu ilay addawatu ila allahi tabaraka wa taala mooy indi xayriyatul umma mooy indi nga bokk ca ña gën a baax ci xeet yi ndaxte la ñu jortu la ngay woote jëme ca danga koy fonk di ko jëfee la ngay tere doomu aadama yi danga koy dal di sori ña ngay soññ bëgguñu la gis nga sàggan kon loolu mooy motiver doomu aadama bi ba bu nekkee addaa'i ila allah day mujj nekk jaamukatu yàlla ku toroxlu borom bi subhanahu wa taala ku sopp borom bi subhanahu wa taala ku muñ kuy góorgóorlu kuy jaamu yàlla ndaxte xes nañu ba xamee ko loolu dootul bëgg ñu gisee ko safaan ba loolu moo tax ku nekk daa waroon a takkaayu ngir bokk ci ñi nga xam ne ñooy addu'aatu ila allah te moo jël métier bi ëpp solo itam ndaxte mooy métier bi yonent yi ña nga xam ne istatahum allahu tabaraka wa taala bi risalatihi wa alhamahum bi ilmihi ñee borom ba subhanahu wa taala seggoon tànn leen ngir yónni leen ñooñu mu tànn ngir yónni leen itam mu daldi leen baaxee jubal leen déey leen kon ñooñu boo jëlee seeni tànk jël seeni métier kon dina fekk nekk la ci métier boo xam ne bu mag la moo tax borom bi subhanahu wa taala daldi ñu wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كي موي لي يونس صلى الله عليه وسلم جند في أدعو إلى الله أنا بصيرة borom bi ne bokk ngeen ñi gën a baax ci xeet yi waaw lan moo tax ngeen gën a baax mu ne benn ci ñett yi ta'muruuna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuuna da ngeen di digle njekk di tere safaan ba loolu mooy daawatu ilallah digle njekk tere safaan ba mooy daawatu ilallah te boole ko nag gëm la ngay def boole ko fekk yaa ngi gëm la ngay def loolu boo ko defee rek bokk nga ci ñi gën a baax ci xeet wi bokk nga ñi gën a baax ci biir xeet kon addawatu ila allah amul lenn loo xam ne moo dal di yem ak ñoom ndaxte foo fekk woote jëme ci borom subhanahu wa taala la ko yitte woo mooy rafu zulmi muy dindi tooñ moo xam ki muy dindil tooñ moo tooñ boppam wala dafa tooñ keneen yonent bi sal allah sallam mu ne xam ngeen li ñuy feyee ñooñu ñu ne déedéet mu ne yool bii almuqsituuna ala manabira min nuurin ala yamini rahman mu ne ñii nga xam ne dañu yittewoo dindi tooñ ci kaw suuf ñu ne ñooñu dañ leen di defal toogukaayu leer ñu féetee ndey joorub yàlla te ndey joorub yàlla ku ko féete rek fexe na ndaxte téere jëf bi rek ku ko nangoo ndey joor fexe na borom subhanahu wa taala def ñu wax ne lan fa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuhaasabu hisaaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masuura képp ku ñu jox téere jëfam cib ndey jooram dinañ ko yombalal lañ koy atte kooku sax day daw dem ci njobootam ñoom ñëpp ñu bokk texe waxaan ñu feneen ne wa amma fa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa yaqulu haa'um iqra'u kitaabiya inni zanantu anni mulaqin hisaabiya ila axiri l aya mu ne foofu itam képp ku nangoo téere jëfam ak ndey jooram rek day bég mu ne leen man day atte nañ ma yombal man moom pexe naa atte nañu ma yombal moo tax mu ne ñooñu dañuy féetee day jooru yàlla borom bi subhanahu wa taala waxaat ñu feneen ne nit ki bu fekkee ne mu ngi faatu te mu bokk ca waa ndey joor maanaam ñi jëfoon lu baax nar a féete ndey jooru yàlla mu ne ñooñu day nekk nañ ci xiwal mu dal di ñu wax ne wa amma in kaana min ashaabil yamin fa salaamun laka abil yamin mu ne su fekkee ne nag waa ngay joor ya ñoo ñooy faatu mu ne ñooñu day fa salaamun laka jàmm rek ak kaw jàmm mooy am amul leneen lu am lu safaan ba kon nag addawatu ila llah mbir mu am solo la nañ ci bàyyi xel ñeenteel ba ngir tënk asabru ala al aza fiihi asabru ala al aza fiihi damir baa ngi delluwaat fi l ilmi ndaxte a dawatu ilayhi woote jëme ci xam-xam boobu waaye nag a sabru ala al aza fiihi fi taxsili talabil ilmi shari ndaxte sàkkub xam-xam buñ ko jàppee ne rek dem jàngi ñëw toog waaye xayaatul insan kulluha saalihatun li talabil ilmi dundub doomu aadama yépp da ciy war a sàkku xam-xam min al mahdi ila al lahdi day tàmbalee ci berceau ba ci balankaar day tàmbalee ci berceau bi ba ci balankaar ba mu juddoo fañ ko tegoon ngir raxas ko ak ba mu dee fañ ko teg ngir sam ci période boobu yëpp sàkku xam-xam def ko war ci loolu kon sàkku xam-xam boobu da ciy war a muñ salafu saali dañu doon wane xam-xam nekk na lu jafe nekk na loo xam ne lu jafe إذا أعطيته كلك يؤتيك بعده moom mooy li nga xam ne boo tàggatee sa bopp yépp jox ko wut xam-xam xam-xam jox la genn wàllam boo ko joxee sa genn wàll du la jox dara xam-xam boobu la koy saxal muy jëfee ni ko jindee ci gannaaw ak jub imaamu shafai rahimahullah téere bu mu mos a firi jàng ko rek day firi rek jàng ba mu jeex dëpp loo ko laaj wax la ko tari na téere bi moom daal na tasafuf rek na jël rek xool rek ni nii ni nii xool ba pare rek jeex na enregistré na pare na comme comme comme photocopie waaye mu dem dem yàgg gis ne loolu mu ngi wàññeeku mu dem ci wakii mu ne ko man daal tiit naa de man sama ni ma munoon a takkee léegi mu ngi rëcc kooku ne ko bàyyil mooy yàlla bàyyil mooy yàlla شكوت إلى وكيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي ما دمنا ديكو جويتو من ما بايل مو يالا دي دخت العلم نور الله ونور الله لا يؤتى لعاصي من خم خم دي leer la bu jóge ca yàlla leerub yàlla nag duñ ko jox mooykatu yàlla kon xam-xam boobu nag fokk ñu muñ ngir loolu mun a sax ndaxte bu saxee nga jëfee ko rek da nga am ab jafe-jafe nañu xool xam-xam chari rek ngay jàng dellu si fa nga dëkkoon am problème lu dul loolu loo jàng boo ñëwee amoo problème demal nekk maçon ba qualifié boo ñëwee fa nga dëkkoon amoo problème mécanique ba qualifié boo ñëwee amoo problème mun menuisier ba qualifié amoo problème tailleur ba qualifié amoo problème électricien ba qualifié amoo problème waaye diine ba qualifié boo ñëwee ñu ne ba nga juddoogul ñu ñuy jàmm yàlla problème bi commencé loolu moo tax laa budda min a sabr fokk rek nga muñ même waajur bi métier loo ko fa defa rek def lay ñaanal yal na ci yàlla def barke nangam ak nangam piis bi da ngay dagg rek xamul ne man nga wala man waaye du du jàpp sa loxo de naan yaa ngi yàq sama piis déedéet boo doon def fondation bi di gas di jubbanti di toj bu wax ne yaa ngi yàq sama kër bi déedéet du def dara bu bunt bi bu ko doon defar ngay dagg ak sii di rabote di def du wax ne yaa ngi yàq de day noppi rek ndaxte moom mu ngi xaar oto bi boo taalee du la wax ne mbaa man nga de mbaa nii déedéet day toog rek xaar wàkkeerlu rek noppi di la seet waaye diine ji nag boo ko ne papa nii mu ne ba nga juddoogul maa ngi jàng muskila parce que seytaane moo ci nekk seytaane mooy dox sa diggante ak loolu waaw métier yi yëpp nag amul benn dalil ne xam nga ko wala xamuloo ko waaye njàng moom automatiquement boo waxee rek mu dal di rejeté booy wax rek mu dal di rejeté kon nag loolu yow ci sa bopp boo àndul ak sabre boo àndul ak muñ nga ànd ak yar nga ànd ak teggi doo jëriñu doo jiggi amma li nga xam ne mooy sabre nag boroom xam-xam yi xaaj nañ ko ay xaaj maanaa am na li ñuy tuddee asabru ala taatillah am li ñuy tuddee asabru an maxaarimillah am li ñuy tuddee asabru ala aqdarillah kon ñetti xaaji sabru yi mooy daje mu nekk muñ bi nga xam ne moo mun a jëriñi lu tollu ni muñ la ñu gis borom bi subhanahu wa taala mu ne sukkandiku ci sukkandiku ci muñ wastainu bi sabri wassalaa mu ne na ngeen sukkandikoo na ngeen dimbandikoo li nga xam ne mooy muñ ak julli mosuñoo dégg nit ne rëccu naa li taxoon ma muñ li ñuy dégg kay rëccu naa say su ma xamoon muñ gis nga muñ rek moo am solo kon ñetti xaaju muñ yooyu mooy dangay muñ ngir jaamu yàlla taxaw di julli di woor di aj sànni jamra def mbir yooyu dafa jafe taxaw itam am sa alal calculer sa alal boobu génnee deux virgule cinq pour cent dem koo xam ne participer wul ci sa am am boobu amaan na sax sa noon la borom bi subhana wa taala mun la jox amaan na sax sa noon la allahu alam waaye condition yi bu dajee ci moom rek borom bi subhana wa taala ne jox moo xam bokk la moo xam du bokk ñaanal la wala ñaanalu la te warulaa jëfal dara moom itam ba nga koy ba nga koy nangu daa war a gëm ni du sa mbaax yàllaa ko ko sédd fal force nga jox ko ko walla borom subhanahu wa taala fudd sa digg hakaza kon yooyu muñ dong mooy war a tax doomu adama bi mun ko appliqué sinon du ko mun loolu mooy asabru ala taatillah dangay nangu muñ ngir mun a topp borom subhanahu wa taala beneen bi mooy muñ an maharimillah li yàlla xaraamal nga gis loo xam ne danga ko bëgg lool yàlla ne bu ko laal bu ko jege ñu joxe ci ñaari misaal rek am na benn sahaabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ci loxoom jaaro or jàpp summi jaaro bi dal di ko sànni mu ne kenn ci yéen rek di jël xalu safara di ko def ci loxoom maanaam dalika sababun li dukuli naar ndaxte lu xaraam la sabab la ngir nit tàbbi safara yonent bi bàyyi ko fa jom dem ñamu toogaloon ne ko waaw jëlal jaaro bi dem jëriñoo ko feneen takk bi rek la ñu tere ci góor jaay ko jëriñoo njëgga yóbbul ko sa soxna mu nekk njëriñ mu ne yéen dee jaaxal ngeen salawatullahi wa salaamuhu tekki dara ci sama baaroom sànni ko ma koy laala abadan mooy taatum taam xalaas moom na ñàkk jaaro or boobu jeex na da koo bëggoon ba def ko ci loxo waaye léegi tey bañ na ko gannaaw rasul sallallahu alayhi wa sallam ne na ko bàyyi ko jeex na bañ na ko buggatu ko kon ta taxawaay boobu mooy ak sabru an mahamidillah da ngay muñ dëgg dëgg la borom subhanahu wa taala dal di xaraamal nga bàyyi ci xel bu baax a baax nga dal di taxaw taxawaay bi nga xam ne taxawaay bu am solo la taxawaay la boo xam ne bu dëgër la loolu muñ la ndaxte lu borom bi subhanahu wa taala xaraamal la waruñu koo laal waruñu koo jege ñu gis itam ne ci muñ boobu borom bi subhanahu wa taala ba mu xaraamalee sàngara anas radiallahu anhu mu ne keroog da nga doon gis mbedduy medina sangara bi di yol di dem ndaxte ba ñu ne xaraam na rek ku nekk dafa dem fam ko dencoon toj ko mu dal di dem xalas hakaza hal antum muntahun lu mel ni umar ubnu alxataab radiallahu anhu mu ne intahayna ya rab mu ne sangara day def lii day def lii day def naa day def naa day def naa waaw yéen itam nag du ngeen daytalu nag ba ko umar ne banañ axir shay marra waxida mu ne jeex na gannaaw lu xaraam la rek dootuñu si jëm kon loolu mooy asabru an maharimillah lépp lu borom bi subhanahu wa taala xaraamal rek suum ko beneen bi nga xam ne moo ko ñetteel mooy asabru ala aqdarillah dangay muñ nag ci ndogalu borom bi subhanahu wa taala moo tax ñu boole ko ci benn ponk ci ponk imaan yi an tumina bilqadiri xayrihi wa sharrihi dangay gëm ndogal nag moo xam bi ñëw ànd ak mbégte wala bi ñëw ànd ak tiis ndaxte borom subhana wa taala mu ne dinaa leen xupp de ni ma leen di xuppee nag mooy dinaa leen ragalloo dinaa leen tiitloo dinaa wàññi seen am-am dinaa wàññi seeni nit yooyu yëpp naa leen ci xuppee am mbokk mu dem am waajur mu dem am doom mu dem loolu yëpp borom subhana wa taala mu ngi xupp mu ne nga am alal mu dem borom baa ngi xupp am ñu léeg-léeg yooyu diig borom baa ngi lay xupp yooyu yëpp nag nit ki day dal di muñ ànd ak sabab du ko yóbbee ci jël la mu moomul du ko yóbbee ci wax lu dëng du ko yóbbee ci nax ay doomu adama du ko yóbbee ci tappale kooku mooy ak sabru ala aqdarillah wàññetu bakkan bu amee la muy gëm ne moom mooy ne moom day dem inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu la inna lillah wa inna ilayhi rajiun ñun ñëpp yàllaa ñu moom te ñun ñëpp dañuy dellu ci borom bi subhanahu wa taala allahumma ajirni yow borom bi subhanahu wa taala jàppale ma yombalalal ma li nga xam ne teg nga ma ko ku ñu ko leeralal foofu mooy ummu salama radiallahu anha mu ne yonent bi ba mu jàngalee lii toog naa lu yàgg soog koo dégg dëgg dëgg mooy lan mu ne ndaxte ba ko yonent bi jàngalee ñu toog ba mu yàgg sama borom kër dal di dem borom kër ummu salama moom itam mu dal di dem abu salama borom bi subhanahu wa taala jàngale woon na yonent bi leeral lu mel noonu bu amee dangay wax ne ñun ñëpp ñu ngi dellu ci borom bi moo ñu moom borom bi subhanahu wa taala yombalal ma ling ma teg waaye nag defal ma lu ko gën umu salama mu ne lii ba ma ko déggee ba ma ñàkkee abu salama xool naa sahabatul kiram yëpp man ma jàpp ne ku ko gën nekku fi ku ko gën nekku fi waaye gannaaw ndigal la bu jóge ci yàlla yonent bi salallah sallam jàngale ko damay jàng ñaan bi dal di ko gëm mu jàng ñaan bi dal di ko gëm ba iddaam jeexee yonent bi labat ko mu ne keroog nag laa xam waxu borom bi ak waxu yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci muñ ci wàkkerlu ci loolu ndaxte laa shakka ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam moo gën abu abu salama kon doomu aadama itam day bàyyi njëri yu mel noonu kon loolu mooy njëriñ bi nga xam ne mooy ñeent yii nga xam ne mu allif bi wax nañu ne ay cosaan lañu ci diine nit ku nekk da ko war a xam mooy nga fexe ba xam sa diine loolu nga xam nga jëfee ko loolu ngay jëfee di woo doomu aadama yi ñoom itam nañ ko jëfee te doomu aadama yooyu itam ci seen bopp nga leen di dénk dëgg loolu mooy woote jëme ci loolu waaye yooyu itam nañ koy boole ak muñ dañ koy boole ak doylu dañ koy boole ak suufee ndaxte bul jàpp ne sa doole ak sa xereñ ak sa xam-xam moo tax nga jaar yoonu jub ku la ëpp xam-xam fuuf jaar na fi réer ku la ëpp doole fuuf ëpp la kàttan ëpp la man-man ëpp la alal fe borom bi subhana wa taala seetaan na ko ba gisul dëgg te mu nar a alku da nga nekk koo xam ne ku yemamaay ci sa xam-xam ku yemamaay ci sa moomeel ku yemamaay ci sa jëmm borom bi subhana wa taala baaxee la nga gis dëgg waaye dëgg dëgg li war ci yow mooy la borom ba wax wa ahsin kama ahsana allahu ilayka fexel nga rafetal ni borom bi subhana wa taala rafetalee jëmi ci yow اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا حسن اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا حسن اجتنابه tal yu jóge ci téere borom bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii mooy ñetti ponk yooyu te ci ñetti ponk yooyu jotoon nañu jël bii nga xam ne mooy xam borom bi subhanahu wa taala te ñu jaaraloon ko ci ñeenti tomb benn tomb ba di li yóbbaale xam diin al islaami ci benn boobu benn ponk bi nga xam ne mooy al ilmu mu ngi mel ni ci lañ tàmbalee woon mu càq ñeenti càq mooy xam sa diine gëm ko dal di ko jëfee dal di woote jëm ci dal di muñ lépp lu la ci fekk mu jëloon ñu tegtal suuratul asri kon tey ñuy tàmbalee ci waxu imaamu shafii ak gis-gisu imaamu buxaari rahimahum allah moom imaam shafai mu ne saar bii di wal asri suñu ko seetoon settantal ko ni koon borom bi subhanahu wa taala bu wàccewuloon lenn ci quran lu dul suratul asri nga xam ne alquran yépp suratul asri dong la mu ne ni koon dey dina doy xeet wi ci borom bi subhanahu wa taala am ci ñoom lay bés penc képp ku def safaan buñ ko bugalee fekk ci maandu la tegu képp ku jaar yoon buñ ko teralee fekk ci maandu la tegu loolu moo tax moom imam shafii rahimahullah mu ne law ma anzala allahu hujjatan ala xalqihi illa hadihi sura la kaffathum fekkoon ne borom bi subhanahu wa taala wàccewul benn lay lu dul suuratul asri donc ne ñépp perte nañu lu dul ña gëm jëf-jëf ju baax te di diglante dëgg te di muññalante ci seen diggante mu ne fekkoon ne borom bi subhanahu wa taala lii dong la wàccee ci xeet wi day loolu doy na mu nekk ab lay te xam nañ ne qur'anul karim benn ci ñaar yi la imma hujjatun laka aw hujjatun alayka fokk mu nekk sa lay boo moom yow nga dal di ci téye ne borom bi subhanahu wa taala lii nga ma digaloon lii laa def kon loolu sa lay la yaa ko moom borom bi subhanahu wa taala lim lay tontu mooy wa ma yubaddalu lqawlu laday man day sama wax duñ ko soppi la ma waxoon daal balaa may sàkk mbindeef gi looloo am kon boo jaaree ci lii kon jeex na kon mooy benn bi kooku sa lay la boo xam ne yaa ko moom ñaareel bi hujjatun alayka muy lay bu tegu ci sa kaw yow borom subhanahu wa taala mu ne ah man day lii laa bindoon lii laa digle woon lii laa tere woon yow nag jaaroo ci kon ci lii laa lay atte muy layu borom bi subhanahu wa taala loolu dal di nekk ab bugal kon imam shafii mu ne saar bi dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax ndaxte ñeent yi mu junj yu am solo la imam buxaari rahimahullah moom itam mu gis ne asl bi ñu njëkk a wax maanaam ponk bi jiitu mooy xam mu ne boobooy lépp mu ne nit ki su réeree boobu rek jaar na ci yoonu texewadi nit ki bu réeree diineem rek na ko wóor ne jaar na ci yoonu texewadi féeg ba muy xamaat diineem jaar ci yoonu texe te borom bi subhanahu wa taala ab layam dafa gën a taraat ci suñu jamono ji ñu toll ndaxte ku xamul yaa bañ képp ku xamul yaa bañ mais képp ku bañul léegi xam nga ndaxte foo jëm xam-xam ak la topp di daw foo mun a jëm xam-xam mu la topp di daw bu fekkee ab rajo nga ubbi xam-xam mun nga ko ci amee bu dee ay cassette nga yore mun nga ko ci amee bu dee ab télévision ngay seetaan mun nga ko ci amee bu dee ab ordinateur nga yore mën nga ko ci xamee bu dee ab internet nga yore mën nga ko ci xamee bu dee téere yépp tasaaroo na lam nañ booy làkk tey téere yi dem nañ kon ku dul ku bañ rek mun naa am lii nga xam ne mooy xam-xam ndaxte bu njëkk dañ doon laxas fekki xam-xam tey xam-xam moo la topp di daw nañ ko déglu ngay dal di bañ moo tax imam Bukhari mu ne xam-xam boobu daal mooy lépp moo tax mu ne baabun al ilmu qabla al qawli wal amal mu ne buntu bii li ma ci bugg a wax daal mooy nit ki dafa war a xam soog a wax soog a jëf nit ki dafa war a xam soog a wax soog a jëf booy wax waxu waaraate wala di wax waxu jaamu borom bi subhanahu wa taala ndax yépp wax la booy zikar booy tasbih booy ñaan booy tàgg borom bi subhanahu wa taala booy julli lii yépp dafa laaj wax ak jëf te ñaar yooyu benn ci du wér lu dul dafa tegu ci lii nga xam ne mooy xam-xam moo tax imam buxaari mu ne man li may tegtaloo mooy waxu borom bi subhanahu wa taala def ñu waxoon ne faalam annahu laa ilaha illa allah wastaghfir li zambika fa badaa bil ilmi qabla al qawli wal amal mu ne borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne na nga xam njëkk ne kenn yeyoowul jaamu kudul allah gannaaw ba nga ko xamee ba pare nag wastaghfir li zambi nga soog a jéggulu tay bàkkaar imam buxaari rahimahullah mu ne borom bi subhanahu wa taala dafa tàmbalee ci xamal balaa mu lay wax waxal baa jëfal kon képp koo xam ne réeree nga la ngay wax réeree nga la ngay jëf yaa ngi nekk ci yoonu texewadi ndaxte lépp leer na yomb na borom bi subhanahu wa taala mu ne boo xamul fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun xamuloo nooy zikkaree demal nga ne ku xam naka la borom bi subhanahu wa taala tudd wala allah la tudd wala mu ne la arrahman la tudd wala mu jox la alxafuur wala yeneen yu mel noonu yow benn jëf ngay soxla def dagan na wala daganu mais demal laajte ne la bi mbir mu dagan la nga def ñu la mbir mu xaraam la nga ba mais jëf ba pare nag soog koo bugg a wuutal ab lay nag loolu mooy coono yi moo ñu sonnal ñun dañuy wax la ñuy wax ba pare dem nag laaj buñ la joxee lu safaanoog la nga waxoon wala la nga jëfoon nag jafe-jafe dal di am kii daa xamul dara kii dafa teengal ay mbiram di làmb ba daje ki nga bokkal xelaat nga ne nag muggo loolooy diine déedéet loolu mooy ittibaul hawa mooy topp sago waaye nit ki dafa war a laaj ba mu leer wala mu jàng ba mu xam loolu nag mooy la gën jàng ba xam waaye xam-xam boobu nag ci yoonu laaj lay ñëwee moo tax borom bi subhanahu wa taala moom dafa tàmbalee ne la xamal soog laa wax ne waxal soog laa wax ne jëfal ndaxte boo jëfee ci sab xelaat borom bi subhanahu wa taala mu ne moom yoonam nekkatu ci moo tax mu ne yonent bi na ko leeral kooku dal di ñu wax ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad bépp jëf boo mun a jëf moo xam lu ñuy wax la moo xam lu ñuy jëf la moo xam lu ñuy def la moo xam lu ñuy bala te ndigal bi jógewul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne boo demee bés penc dañ la koy delloo raddun nag boroom xam-xam yi am nañ ci ñaari xelaat ñenn ñi ne raddun bi maanaa pare yaakaar ci dara bés dañ ci ñëw jëf ja yëpp ñu tàllal ko delloo la borom bi ne ah dañ koo jëfoon kat aw ma ci soxla nga xam nga musiba ñëpp gis ci benn société bu mu ci liggéey ñëpp déposé seen dossier ñu toog ba bés biñ leen joxoon rendez-vous yow nga ñëw ñu génne sa dossier jox la na sëñ bi yow mun ngaa téye say dossier kon loolu xam nañ ne mbir bi mooy yow soxlawuñ la soxlawuñ la foofa kon borom itam noonu lay gis ci benn gis-gisu borom xam-xam ñeneen ñi ne déedéet raddun du maana dañ lay delloo jëf ja déedéet maana dalika raddun li risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu gën a ñaawati gën a fësati mu ne mooy maana ne yow delloo nga yonent yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ne ko law liñ la yónni woon daal valabulul baaxul waaye man lama gis ci sama xel moo valable moo baax noonu lañu war a jaamoo borom bi subhanahu wa taala yow xamoo dara ñenn ñu ne loolu mooy raddun ñaar yi yëpp amu ci benn bu baax toog fii ne yonent bi liñ ko yónni baaxul yow li nga indi moo baax xam na ne loolu la muy jural boromam muy mbugal bés pénc toog itam di jaamu yàlla rek foog ne baax na dem ba foofu yàlla delloo la ko mu ne la ah man bugguma li nga doon jaamu loolu itam xam nañ ne musiba fa la yem ñaar yooyu yëpp bu ci nekk fa muy teeree mooy mbugal yàlla na ñu ci borom bi subhanahu wa taala musal kon imam Bukhari mu ne nañu bàyyi xel ci xam-xam boobu ñu xam ne borom bi subhanahu wa taala moom li mu digle mooy looy def nanga ko xam waaye moom buñ ko jaamoo ci yaakaar naa foog naa jàpp naa déet looy def daal nanga ko xam ba mu leer la naññi amaan na nag ci la wax jum li la leer ne looloo am fekk melu ni heure boobu borom bi subhanahu wa taala dalay jéggal moo tax mu ne ku góor góorlu borom bi baaxee la ci sa góor góorlu boobu nga dajeeg dëgg yàlla mu ne ma fay la ñaari yool benn yool mooy li nga góor góorlu doon làmbatu bugg a xam ñaareel bi muy ñaari yool ma jagal jagleel la ko mu ne ku góor góorlu nag dal di juum jël leneen na ngay jaamoo fekk borom bi buggul loolu borom bi santaanewul loolu mais nag góor góorlu nga góorgóorlu nga di jàng góorgóorlu nga di laajte xëj na yoon ba nga jaar mooy yoon njuumte borom bi subhanahu wa taala mu ne ma jox la benn yool ndaxte góorgóorlu nga waaye nag dajewuloo ak dëgg waaye nag jéggal naa la kon li nga defoon lu dul dëgg waaye dinaa la fay benn yool li ci bon kay mooy ki góorgóorluwul laajum topp rek yi nga xam ne moo ko neex wala mu góorgóorlu waaye góorgóorloom boobu da koo teg ci bakkanam laaj nañu wax ko dara mu gis ne du loolu muy laajte laaj ba daje ki bokk ak moom xelaat mu jël loola kooku kay mooy ki am jafe-jafe ndaxte kooku mooy ki nga xam ne dafa topp sago kon ñu bàyyi xel dëgg-dëgg ci xam-xam looloo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ko leeral mu ne ñu man yuridillahu bihi xayran faqim fi diin képp koo xam ne yàlla li mu namm ci yow bés penc mooy jàmm teraanga dugal la aljanna mu ne dina la may nga dégg sa diine ci àdduna waaye bu la seetaane rek sa diine sa yoon nekku ci xamuloo yow sa yoon nekku ci doo ko jéem a xam mu ne na la wóor ne borom bi lim lay xaare mooy mbugal mbaa dégg nañu suñu diine allahu alam kon nañu ci góorgóorluwaat bu baax a baax mun a dégg suñu diine dégg sa diine nag ba nekk ca mufti loolu moom mbaax la bu jóge ca borom ba subhanahu wa taala li gën a baax mooy nga jéem ba xam li nga xam ne mooy al mabadi al asasiyat maanaam principe yi fexe ba xam yooyu alal axal nga xam nooy jàppee nga xam nooy jullee bu julli ba yàqoo lan moo koy defar nga xam koor ban heure ngay tàmbale imsaak bàyyi lekk bàyyi naan ban heure mooy heure ndogu bu la dara gaaree ci koor bi naka la mu wóor la ne asaka lu war la ban at maanaam nga yitte woone fukki weer ak ñaar mat na bu dee ci wàllu commerce nga yitte woone góob na ci anam yooyu loolu mooy li borom bi subhanahu wa taala di jàppee jaam bi waaye nag lu rëy la ak lu sew la ak teg